lool gudde goo xam ne itam juddu yi ñuy fàttaliku yëpp juddu bi moo ci am solo su fekkee ne fàttaliku la ngir bégee ndax mbégte mu jaam def naa ne guddi gi ñu def fu mu def nekk war na koo fàttaliku ndax mooy guddi nga xam ci lañ goree dafa am nañu nangu kuréel gi am nañu gaañ tam tubaarkàlla ñi nga xam ne yàlla xewal nañu nag ba ñu nangu ji euh, yàlla nañu yàlla euh, booleeg Sayyidinaa Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam ba faaw ci suñu dund ci suñu yëg ci suñu ñàkk yëg ci suñu dee ba barsaaku Muhammad ba àjjana euh, def naa ne li kilifa yi wax léegi li signal yu saaxu wax léegi ne Euh, nit mën nañoo ëpp dem ak dikk waaye jàpp ñu ne gàmm bu tegu ci sunna comme ni ñu ko jéemee nii nit mën nañu ko am mbooloo geeg bari gi euh, du solo si solo si mooy teg bi muy tegu ci pëste yéene ak di ko def teg ko ci sunna ndax euh, wax nañ ni képp ku ko def teg ko ci sunna mel nga ne ko si Xaadimu ko wax la képp ku ko xam màggal ko teg ko ci sunna mel na ni defe naa ne loolu koo sellal teg ko ci ci ci ci sunna nit nag dafa lot tele loolu ba nga xam ne def dara mat du ko yomb waaye yéene nag moo moo yemul fenn def naa ne buñ sellalee yéene yi te niiru na ko ci xar kanam yi dina xam ne yéene yu sell am na yàlla mi xam ne moo man lépp am lépp sañ lépp mën nañu ko mottali ci coobareem sañ-sañam te yàlla nañu defal te am ci yaakaar dafa fekk nag lu nit ñi bool booloo yaakaar ko jortu ko suñu borom mën na ko def ñun jàpp ñu tey fii jiw rek lañ fi jëlee yàlla na yàlla euh, mottali ba tax na euh, dañu ne woon nañu sànni yooyu ci baatu suñ Moodu suñ suñ seen Moodu li ci des nag kilifa yi fi nekk mag. leen déglu tabaarkàlla fas yéene taalib ci ñoom fas yéene dolli ci ñoom di nekk seen bopp taalib saa su nekk di nekk seen bopp bi saa su nekk e, ñu daal genn kër la la ñenn nit la genn njaboot la saa su ne ñu ngi saafonte e, te yàlla jàpp nañ ne faaw mot lii ndax sëñ Blanc daan wax ni e, yàlla amul xol dëgg la naam. waaye mbooloo mu ne fu ñu nekk la ñu bokk bëgg rek la suñu borom def xorom maanaam loolu la ñuy am bokkee bëgg lu baax lu baax bokkee yéenante ku ne yéene sa borom ab safaan ku la nga ko defee ku ne am safaan wax yaasu bi euh, tax na daal euh, tabaarkàlla suñu xol borom nangoo da koy yëg sa yaram da koy yëg sa xol da koy yëg ci say yëg-yëg jëf borom nangoo ko yàlla na yàlla bu ñu yaakaar tas ci barke Muhammad def at ba di ko taxawee may yàlla ñi nga xam ne ñooy taxawal islam dëgëral leen ci àdduna la Gel. Gel. Gel. Gel. Gel.